tuubaa texe la xoo ñeel na aji sopp ja waylu hum te ñeel na leen way bañ ña ñoom way bañ ña waylu hum toskare tawaa loolu sax na wa shaqaawun aku texee di dina ko yàlla may nga sopp sëriñ bi te yàlla tax santal sa mbir baax na ba noppi waaye ko yàlla na toog nag bañ sëriñ bi moom dee séentu toskare ak texee di faaw faaw xoo moom alxadimu mooy liggéeykat ba ibnu xibbillahi kay doomi xabibullah ahmadu te mooy ahmad man ko nga xam ne anwaaruhu ay leeram wal mazaaya ak i ngëneelam saddat sakk nañu al ufuxa gox ba nee mooy sëriñ bi nga xam ne xabibullahi mooy maamam yàlla may ko ay leer ak ngëneel yoo xam ne fees na dell béréb yëpp asxal afaadili mooy gën jaa tabey mooy gën ña kafan ci tengo wax wate moom ak xaruhum mooy gën jaa laab seen xalban ci xol wa ashkaruhum tey gën jaa sant seen saayan ci jëf li rabbi baqaayin ñeel burub des te mooy yàlla mboolem ñu baax ñi moo ci gën a tabe gën cee laab xol gën cee mën a sant yàlla ci jëf la yàlla bëgg na xam waaw wa axdaluhum te gën a maandu ci ñoom xokkuman ci àtte wa aksaruhum te ëppale ci ñoom xelman ci xam-xam wa asdaquhum te gën a dëggu ci ñoom xawlan ci wax insaana taxandeem wax na ñoom ñëpp nee na mën nga ne moo ci gën a jub ab àtte gën ko cee maandule ëppale ñëpp xam-xam gën a dëggu ñëpp ay wax ci bu waxee ajal waaw wa atwaluhum te gën jaa gudd seen baaxan ci jéego wa arfahum te gën jaa yëkkatiku seen xadaran ci daraja wa anwaruhum te gën jaa leer ci ñoom badaran ci weer jalaa moo wuññi na alxasax lëndam ga moo ci gën a gudd ab jéego gën ci yëkkatiku daraja gën ci moo gën a leer sax weer alaahumoo mooy gën jaa kawe seen ximaman ci ayite abdufaahumoo mooy gën jaa lëw seen karaman ci tabe mooy ci tedd nga anfaahumoo mooy gën jaa dàq seen rumaman ay tiis ak njàqare asnal jamihi moo gën a yëkkatiku ci ñëpp toqan ci ragal yàlla ahlaahumoo mooy gën jaa seen xiyaman ci ay jikko ahmaahumoo mooy gën jaa wol seen diyaman ci ay dët awlaahumoo mooy gën jaa xeer seen gën jaa jëfe seen xiyaman ci ay woloor muy ci ay xayma alal jamihi mooy gën jaa kawe ñëpp naqaa ci ak set naqaan mooy cosaan asnaahumoo mooy gën jaa yëkkatiku seen rutaban ci ay daraja asmaahumoo mooy gën jaa yëkkatiku seen nasaban ci askan azkaahumoo mooy gën jaa sell seen xasaban ci ngor ajlaahumoo mooy gën jaa leer seen turuxan ci ay yoon anmaahumoo mooy gën jaa yëkkatiku seen ni xalan ci ay may wala anmaahumoo mooy gën jaa dolliku ci ñoom ni xalan ci ay may ashfaahumoo mooy gën jaa saafara seen xelalan ay ràgg ahdaahumoo mooy gën jaa gindiku seen subalan ci ay yoon armaahumoo mooy gën jaa sànni seen wariqan ci xaalis wariqan da nga koy def bi kasari raay yu xaalis li mu indi foofu ci ay afan kaf di moom daa bari daanaka lu lu ñu wax ne rek melo bu baax la ñu ko daan xam ci gaa yu baax yi rek suñ baa leen ci féete kaw allahu yàlla xaddamahoo jiital na ko fii naa ci nun wa karramahoo te mu teral ko wa taxara te mu laabal al xalqa bind ba wal af wal afxaal ak jëf ya wal xulux ak jikko ja yàllaa ko jiital wax ñëpp ñu topp ci gannaawam moo ko teral laabal bindam ak jikkoom ak jëfam laabal léppam ak rim kaawteefu tedd nga bii ci moom min kan yi min ci aji tedd maajidin kuy aji tedd xalamin kuy xalam nadd bin kuy aji baax sharifin kuy aji tedd raqaa ko yéeg na ilaa axlal xalaa yi jëm ci gëm jaa kawe kawe nee na ku amul moroom a ngoog di ko yàlla yéegi mu yéeg ba nga xamee ne bi ne leen fii la kaw nekk dem na ba ca kaw foofa wa min imaamin ak ci ilimaan huma min ku di ab sang xayla min kuy géej xaala min kuy xalam xutubun ku di ab xutubu koo xam ne allahu yàlla xadd xaraxa xotti na lil xaadaati ñeel aada ya la ñeel ko ilimaan la joo xam ne yàllaa ko def muy xutubu yàlla xottil ko xeeti baax yi wa min jalilin ak ci aji màgg jalilin ki aji rafet faax ak kawe na badara bu jën weeru ay lëndam ka annama xusnuhoo daanaka rafetu weer wa suriqa sàcceef na ko min husnihi ca taaram ba te ilimaan ji màgg a màgg joo xam ne moo féete kaw weer wi ci leeraay ak rafetaay daa mel ni sax weer wi ci moom la sàccee leeram bi ak rafetaayam bi huwa moom al waliyu mooy waliyu ëllësi wa nga xam ne chaaxal siiw na wilaayatu foo wilaayaam nga fi charxi ci penku wala xar bi ak soowu xadd fataxat tàyyi na rattaqal xilmi tay tayu xam-xam wala yu la yoo xam ne penku ak soowu ñëpp xam nañ ko kenn ampalewu ko ñu tayu woon ci xam-xam moo ko tàyyi mooy lu leerutoon ci xam-xam moo ko leeral huwa moom al murabbi mooy aji tarbiya ja ëllësi ja nga xam ne yooyu siloo na àggale lillaay jëm ci yàlla man ko nga xam ne waafaahu dikkal na ko mun ku liman ci képp koo xam ne xad sadaqa dëggu na fi diine ci diine mooy ki nga xam ne ku ñëw ci moom te bëgg a mëneeg sa borom dong mu tax mu daal lay wan fa ngay aw ba mëneeg sa borom àgg ci sa borom yaa cheikh yooyu sëriñ bi ahmadu te mooy ahmad yaa man yow mi nga xam ne la navira déet ndend lafa di ko ñeel yaa xayra man yow ngeen ci koo xam ne xulixa bindeef na ko baada xasril Moustapha ci gannaaw jamono ka ñu tànn yaa akramal kurama yow gën jaa teddi way tedd ña yaa ahkamal xukama yow gën jaa xam xikam way xam ñi xikam yaa xayra man yow ngeen ji koo xam ne waqaa fegal na li mur yi dii ñeel ay taalibeem alwaba alwaba am bas yaa xayra man yow ngeen ji koo xam ne yow bëggul dana tudd almawla buur bi wa yashkuruhu tam koy sant yaa man yow mi nga xam ne xadru si xa wërsëgaleef na ko lagal bat yi fa tàmbali ko rek sabxal kulli raw ñëpp ñëpp daa waxanteeg moom ne ko yow mi nga xam ne amoo moroom gannaaw jamono yonante bi yàlla sokkul ku mel ne yow yaa gën a tedd ña tedd gën a xam xikam ña xam xikam yaa dàq fegal ab taalibe lu koy lor mel ni mbas mbaa leneen képp ku tudd yàlla ak sant yaa ko ko dàq yaa ko gën yow mi yàlla may rek da ngay door a jóg nga rawoon ñëpp ñëpp xaaroo ba ëllëg ba ngay door jóg rek loolu yàlla may nga raw ñëpp atiq yàlla na nga goreel xobay daka sas njaam ibrahima ibrahim jóob takrimatan ngir teral xasa taraahu xëy na lee nga gis ko xad laxiqa muy joti di ahli sabxi ci ñu raw ga sa njaam si ibrahim da nga koy goreel defar ko ba muy ku baax a baax ba mu joti ñarawoon wa sit fu te nga yokk ko min fadli ko ci sa ngëneel alhaami lay aji yol na daahu tabam nga bilaa xaddin ci limit bilaa xaddin wa jël nibbu te nga sorilal ko chey an dara moo jiban liy aji waral faraxan am tiit dolli ko dool ci sa ngëneel yi baawaan sotli ko lu bare bare ba amul àpp te soril ko lépp li indi am tiit waxutta yàlla na nga sippi bil fadli ci ngëneel la atqaal yi samay diis diis malaazu yow wéerukaay bi yaa mala wa xudd te nga wommat ilaya jëm ci man maa la nga xam ne rumtuhoo sàkk woon naa ko dë ban faw li yow mi li xaa im ñeel bésub tase bari naay bàkkaar ak diis diis yépp sippi ko mu wàcc lépp loo xam doon naa ko sàkku ngir tey jii ak bu ëllëgee ma taxaw kanam yàlla yépp rek dal ma koy womatal mu teew xàlle ko yàlla na doolee nekk ci yow ak baru ridwaani illaahi gën jaa màgg yi ngërëmal bóor bi bilaa xaddin ci limit bi jaahi nabi ci dara ji yonante bi almuxtaari kari kum tànn man ko nga xam ne saba xaraw na ali yàlla na doolee nekk ci moom aska salaatin gën jaa selli teral bi salaami ànd ak booli woolu ma xan booli seen bi alihi ànd ak ñoom alxurum ya ay sang ma asxaab yi ànd ak saxaabaam ya alxutaxaa ña di ñu goreel maadaama li fekk sax na madxuka sa tagg yoo yi di lottal kularaa ini yi jëpp aji sàkkoom wat yi bu zikrika ak li fekk nga xam ne dëttug sa tudd wala neexug sa tudd xabi xag bonni na bonni na min bay neeraa ci diggante mi dee fi fa ñaanal suñ bi yàlla dolli ko gërëm ngërëm li gën a màgg ngërëm bi amul ab ci dara ji yonante bi nga xam ne moom la yàlla may mu raw ñëpp yonante bi ci bopp yàlla na ko yàlla dollil gën ngaa selli teraanga gën jaa sell jàmm moo ay mbokkam ak ci saxaabaam li fekk nga xam ne waaye ngi bëgg a tagg sëñ bi te lu mu jéem jéem du mën a àgg ci fa war a àgg turu sëñ bi ak darajaam di gën di yëkkatiku di gën di neex xet mel na gët buy bonni dafa looloo nga am rek yàlla yàlla saxal salaatu ak salaam ji gën a sell ci yonent beeg ay mbokkam ak saxaabaam walahu aydan jasa yàlla na dollee fay allahu yàlla xayran aw yiw man yàlla mi nga xam ne hadaani gindi na ma li tawbatin jëm ci tuub waxat kittu te xawoon naa an urda bu def ma alak bi asu ay xawbatin ci gënjaa ñaawi bakkaar jasa yàlla na dollee fay allahu yàlla xanaa walis nu a cheikha sëriñ ba ahmada te mooy ahmad xayrama ngën ji la nga xam ne jasaa fay na ko naasi xan aji laabiire xan musxi mar in walis laabiirek ascam su góor wa mar atin ak jigéen dafa tàmbali xasida gi moom ñaan yàlla fayal ko sëriñ bii nga xam ne moo ko awale ci yoonu tuub te fekk na mbooba mu demoon bay bëgga alku ndax bari bàkkaar te bàkkaar yi ñaaw lool dala ko baamuwaat ne suñ boroom yàlla na ma fayal sëriñ bi nga xam ne mooy Cheikh Ahmad la gën ci la muy fay ku daa laabiire góor ak jigéen lu daal lu yàlla daan fay ku daa laabiire rek mu ngi ñaan yàlla fayal ko ko sëriñ bi te yaqan na nga wóolu bi àndi ci naka man tubtu tuub naa tawbata xaasimin tuubub aji dogu li xaafiri zambin jëm ci aji jéggale bakkaar ñeex ma koo xam ne amul moroom xaabili tawbatin te aji nangu tuub mu ne nag na la wóor ne man de maa ngi tuubal yàlla tuub gu dogu yàlla mi nga xamee ne ku ko jéggalu mu jéggal la ku tuub mu nangul la tuub wa asaluhu te maa ngi koy ñaan subhanahu sorelal naa ko lépp lu yollu ci moom ay yuqima nii mu taxawal ma maqaama rida taxawaayu ngërëm min xëyri suxtin ci lu dul mer li jannatin ba ci ajana way waxtu way utiyee nii te may jox fadlan ngir ngëneel bi jaaxi ko ci sa daraja say yi jiyo sama sang bi laa taabin ci lu coono bu di ma jox maa la nga xam ne faaqa kawe na wan nii sama njort woo mun yët yi ak sama mébét dane woon sëñ bi ne la wóor ne ci sa mbaax tuub naa tuub gu sell dellu ci yàlla mu ne ko nag maa ngi ñaan yàlla itam mu saxal ma ci ngërëm boo bàyyi dugg àjjana te bañ a jegee ti luy indi meram maa ngi koy ñaanit nga may ma ci sa daraja lépp li ma bëgg ba may ma sax lu kawe saa njort ak saay mébét lépp maa ngi ñaan yàlla may ma ko ci sa daraja te du ànd ko coono fa jaaxu ko sa daraja hindillahi fa yàlla jaaxun daraja la muhazzamun juddi juñ màggal fa man naa la hoo koo xam ne am na ko yàlla faram mu tuufu bi asna wasilatin ci gën jaay yëkkati koy jumtukaay wala ci gën jaay yëkkati koy jot li ku kaay mu ne ko sa daraja moom yàlla rek xam na mu toll kon nag ku jot li koo sa daraja jot li koo na la yàlla gën a fonk te kon lépp lu mu bëggoon dana ko am ca anam nga gën a mat li ànd naka ngir naka yow shamsul awliya yi yaay jantub wàlliyeer wa xutubuhum tey seen xutubu waxum te ñoom am taalum nujoomi kem ay bidiw lañu ab dailati aji tuuti min ko ci yow fani kulli ñeel na képp min hum ci ñoom rutbatun daraja wa makaanatun ak daraja taxaalat jot kawe na walaakin waaye fuqtahum kawe nga leen bi masiyatin ci ngëneel dane ko wàll yi dañoo mel ne ay biddiw yow nag ngay jant ba ku nekk xam na ne jant bu feeñee yeesul gisati biddiw su jant feeñul nag ñu door a gis biddiw yi mu ne nangu naa ne mboolem wàllu yi kenn ku ci ne am na daraja ju màgg màgg fa yàlla waaye nag wóor na mën a itam ñoom ñëpp yaa leen féete kaw fa innaka naka yow asfahum yaay gën jaa sell ci ñoom wa aktharuhum te ëppale ci ñoom tuqan ci ragal yàlla wa aqfaahum tey gën jaa xeñtu seen turan doole seen bi madhabi sunnatin ci yoonu sunna wa aktharuhum te gën jaa bari ci ñoom xilman ci xam-xam wa xilman ak ci ak lawet wa xikmatan ak ci xikma wa ajbaruhum te gën jaa yoo seen xaqan ci dëgg-dëgg bi kulli fadilatin ci bépp nga neel wa atwaluhum te gën jaa gudd ci ñoom baaxan cib jéego wa ajzaluhum te gën jaa dijj ci ñoom nagan ci topp muy ci maye wa arafahum te gën leen a xam ñoom ñëpp billahi ci yàlla min duuni miriet ci lu daan werante ne ko wóor na mu ne mboolem ñu baax ñi yaa ci gën a sell gën ci ragal yàlla gën ci xeyntu yoonu sunna ëppale ci xam-xam ëppale ci ak lawet ëppale ci xekkam yaa ci gën a yeyoo lépp luy ngëneel yaa ci sut ab jéego yaa ci gën a bari ay may ñoom ñëpp nag yaa leen gën a xam yàlla ëpp leen ëpp cër ci xam yàlla fa xadiisul juudi waxtaanu tabe yoru yi dana ko nettali xan ko jële ci yow ay la mun géej taxal la ma jànge na min ko ci yow kul weeg lin wépp waame woo diimat akuk dët te ne ko sag tab jombal na géej géej bi naa daa tabe ndax ndox mu bari mi tabeem googu ci yow la ko royee ba tey waame wuy sotti ak taw bi taw rek too sewit daañu koy wax jublu ci ak tabe waaye mañ se ne kon waame waag tëdd ga yëpp ci yow lañ jànge tabe laqad dal la réer na man ka nga xam ne yax jooka dina la jorot xaatim ngay xaatim fil joodi ci tabe yu shabihu dana nuróole daal juudal baxari tabu géej ga min ko ci yow di xasalatin ci ak toq ku bëgg a wax sa tabe di ko misaal di ko misaali xaatim yi nga xam ne siiw na ci téere yi nam tawe woon mu ne ko ku lay jéema misaali xaatim moomu moo la umpale dëgg-dëgg te moo réer te moo sànku dafa mel ne sag tab daa mel ne géej tabuk xaatim nga mel ne benn toq rek nag mu bëgg a yemale sa tab gu réy gi toll ne géej ak akuk toq rek laa yëgal ayuhan naddu yow aji baax ji ar rafiixu ji aji yëkkatiku sanaahu wa taggam wa wa yaa rahmatal mawla yow yërmande yu buur bi ilaa kulli ummatin jëm ci lépp xeet wi ma daxtu ko tagg naa la laakin waaye lastu déet man oh si may jéem a lim fana akum seen tagg walaw ànd nii ak doonte naka man am laytu fite naa alfa saxiifatin junniy téere mbaa junniy kayit mbaa junniy xët tey bëgg a jeexal xasida gi mu woo ko ne ko yow ku baax ki nga xamee ne sa daraja dafa yëkkatiku lool yàlla def la nga yërmande yi mboolem xeetu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dama laa tagg nii ndax xirri waaye jéemuma àgg fañ war a àgg ci tagg la ndax xam naa ne foofa kenn mënu faa àgg lu ma bari bari lu ma wax ci sa tagg su ma bindoon junniy téere mbaa junniy kayit mbaa junniy paas mu daal mun maa fexe fexe ba àgg rek ci jot sa àq ci tagg la tagg wa yell ci yow ataala yal na yàggal ilaahul xaras yu buurub aras umraka sa dund bil mu naa mu ànd ak mébét ya wa ardaaka te mu gërëm loola fi daare ni ci yaari kër yi fii kulli lahzatin ci gépp gendi ko mooy lépp lu mooy ci sépp waxtu su gàtt gàtt bi jaahi rasulillahi ci dara yonante yàlla ba taaxaa te muy taaxaa muhammadin moo di muhammad alayhi yàlla doole nekk ci moom salaatun dolli teral suma aska taxiyatin topp gën jaa selli nuyoo maxal aali ànd ak ñoñ ña wal asxaabi ak saxaaba ya wal xurri ak sang ya kulihim képp ci ñoom bi sirrin ci lu nëbbu wa jaxrin ak ci lu biir suma bad in topp ak tàmbali waxat matin akuk mucc muy ak jeexal dafa daal xasida gi ñaanal sëñ bi yàlla gën a guddal fanam te gën koo defal lépp lu mu bëgg saa yu nekk mu ne ko sottil ngërëm dara ji yonante bi yonante bi nag yàlla ko yàlla dolli teraanga ak jàmm mook ay mbokkam yaag saxaabaam ya yàlla ko yàlla yokk saa yu nekk teraanga ak jàmm moo gaayam yooyu ci biir ak ci biti ci tàmbali ba ci ak mucc fa ajaabate tontu a cheikhu radiallahu taala anhu bi xawlihi wa alaykum salaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatuh i'lam xamal ne anna allah naka yàlla tabaraka wa taala qabila nangu na tawbataka sa tuub wa anna rasulallahi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wa baraka wa hada may na lii ñeel ma anna kulla man nag képp koo xam ne taxallaqa aju na bii ci man saadiqan mbir mu muy aji dëggu fii taalluqihi ci ajoom nga laa yatawajjahu du jublu ilayhi jëm ci moom shaytaanun saytaane lii ci da ngir bëgg yàqal alayhi ci moom wa innama yatawajjahu naka dana jublu ilayhi jëm ci moom in xasala ndeem am na ak tawajjuhu jublu ga bi ixwaa in xayrihi ci bewloo ku bokkut ak moom min alladina ci ña nga xam ne jaawarahum dëkkaale naag ñoom aw xaarabahum wala mu jegeeg ñoom wala mu yataallaqoo te ajuwuñu biyee ci man xasida googu sëñ bi di ko ci tontu ne ko li nga ñaan yàlla jéggal la say bàkkaar yàlla defal na la ko ne la wóor la yonante bi nag may na ma képp ku jàpp ci man te yàlla rek tax te dëggu ci jàpp ga lu yàgg-yàgg seytaane di la dëgmal seeti ngir bëgg laa yàqal la ci xaw day waar de mooy boo dendee koo xam ne ajuwul ci man nga dëkk ak moom baa nga jege ak moom lu la seytaan yi bëggee yàqal ci ñooñu lay jaare da nga xam ne ne yow bu njëkkee jekk song la du la mënal dara da koy jaare ci ñeneen ña nga xam ne ñoom nga dendal te ajuwuñ ci man waaw loolu moo ci xaw doy waar walahu aydan taxiyatu mushtaqin nuyóob aji sopp mu tayyebatun bu di buñ teeyal xusna bu gën a rafet axaara abal na asada gëtt ga xarfan xet wa badara duja te mu abal weeru lëndëm ja xusnan ab taar ilaa sayidin jëm na ci ab sang xutbin kuy ab xutbu sharifin ku di aji tedd mu majjadin ku di kuñ teral xusnaa koo xam ne làqe nanu bisi ci moom xayra yi daare ni yaar yi yaari kër yi doona xanaa ci lu coono ilaa sayidin jëm na ci ab sang maa an jabat boo xam ne mësta mucc xat mukk mislahoo am kemam si waa jaaratin ndare jaaratullah si waa jaaratin ndare aw dëkkaale yàlla a jaarat woo xam ne musal na kullan képp wala xusnan te déet njàqare boo seetloo nag axaara bële day mel ne day nëbbu xiya mu dellu ca taxiyatu mustaqin wala bu nekk ñu waxoon ne foofu jigéen gi lu war la waaye nag bu doon jigéenu majaas tamuy lori way loolu mën naa nekk nga xoolaat nag ba xam ne nga gisaat beneen yàq boo xam dana wóoteeg noonoom déet waaye max naa yu amut ak lëndëm daa wax ne koo xam ne dafa namm lool te sopp lool ki muy nuyu moo koy nuyu nuyu bu rafet rafet bu teye tey boo xam ne day neexet ba mel ne la gëtt di neex neex nuyoo bee ko abal xet gu neex ga nuyoo bi day rafet lool ba nga xamee ne weer yi bu fekkee ci lëndëm gi la muy rafet rafet day mel ne rafetaayu nuyoo bi moo wàllu weer woowee rafetaay ba nuyoo bi mel noonu nag nee na moom lay jëmale ci sang bi nga xam ne xut bu la ku tedd la te moom tax am yiwu àddina ak alaaxira te sonn ca kon maa ngi nuyu sang bi nga xam ne di ko soxna jaar amee mu feeñe ci moom manees na ne moom rek mooma saam ku mel noonu soxna jaara mi nga xam ne ci dara jaam la nu yàlla aare musal nu te amunu benn njàqare ilaa sayidin jëm ci ab sang aqtaabu haadal wara koo xam ne mboolem xutuba yi lay mindeef maxan boole seen aqarroo saxal nañu loxoo ñeel ko bi sabte ci raw fil hissi ci zahir wal maxna ak ci baatin man nga ne fil hissi ci yëg hissu mooy làmb daj wal maxna ak maxna ilaa sayidin jëm na ci ab sang xadd faasa boo xam ne texe na mulki qiyaadihi aji sànni ak woomatam ilayhi jëm ci moom ak yow sama mbokk alqi sànnil jëmale ci moom alqiyaada woomat ga idan kon maanaa ànd ak nun maanaa moo doon cosaan te maa ngi nuyu sang bi nga xam ne mboolem kilifa yu mag yee mag xam nañ ne yàllaa ko may jiitu gi mu jiitu ak raw gi mu raw ci biir ak ci bitti ba tey maa ngi jëmale nuyoo bi ci sang boo xam ne ku ko jox sa bopp ne ko maa ngi nii defal ma la gën ci man dal ngay taxe faw kon nag mbokk maa ngi lay laabire nga jox ko sa bopp ñun def ànd ak nun ndax nga am li nu am ilabni xabibillahi jëm ca doomi xabibullahi ja ahmadata mooy ahmad man ka nga xam ne xadaa xëy na yusiixu di soril galaamal jëxli lëndëmuk réer xan kulli man walis képp koo xam ne xan na feeñ na xan na boobu mooy fi di gaar waaye maxnaam gaar boobu mooy feeñ xan na bi maxnaa dëhëra nuyoo mel nii ne maa ngi koy jëme ci doomi habibullahi ji tudd ahmadu bamba mi nga xamee ne dafa taxaw temm ci lëndëm gu jëm si ci nun mu dàqal nu ko mu sori xoo moom alxawsu mooy xettal wa wa bunul xawsi tey doomi xettal wa wala xay la mu tey géej ga ëllësi ga nga xam ne ataana dikkee nanu bi irwaa in ci ak màndal wa dabbate mu dàq al azza loro xam naa walis noon aw xettal la doomu xettal la dafa mel ne géej dinu màndal ban màndi bu yër di ca boo dox suñu digganteeg lépp luy lor mooy kon dañuy dàqal bépp lor dina andil dina andil bépp njariñ xoo moom alwaahibul alaafi mooy aji maye junni ya wal haazimul ida tey aji dàq noon ya murattilu ayatin tey aji jàng ay laaya idal laylu ndéem guddi ga xaddi jànn kukk na nee na mooy ki tabe lool di joxe ay junni junni te yàlla tax mooy ki nga xam ne mooy dàq noonu yàlla yi ñuy daw mooy saxoo jàngal quran bu guddee ba nit ñi nelaw moom ma ngay jàngal quran fatan astam la saada kook sang na bil xilmi ci xam-xam alkasiir bi aji bari wa bi tuxaa ak ci ragal yàlla wa bil jóodi ak ci tabe ci la sange insal kaw ni niti mbindeef turan boole seen jinnan ak jinne kazaalika nii xam-xam bi ko yàlla may ba mu yéeme ak ragal yàlla gi ak tawe yett yi ci la doone sangub ñëpp ñëpp ci la mujj di sangub nit ñeeg jinne yi fatal waa ji baax la madd xuxoo koo xam ne ak taggam ah yaa lottal na albaraya mbindeef yi jamiihahum boole seen wa ah yaa humoo te dundal na leen wal kullu te képp xaasoo laqe na bii ci moom mën nañ xeewal waa ju baax la joo xam ne mbindeef yépp tële nañ ci tagg ko tagg way yelloog moom ñépp buñ maase woon ci tagg ko it du tax ñu jot àqam dafa mel ne moo leen dundal mbindeef mu ne am nga ci moom xéewal goo xam ne bu bàyyi ko ci yàlla it ci moom la jaare xatan waa ju baax la maa ji dun ku aji tedd lam nadri kok xamunu kon xartifaaxihi dëgg-dëgg ak yëkkatikoo si waa annahu ndara naka moom xalqul mindeef la si waa annahu ndara naka moom min naa bokk na ci noonu waa ju baax la yoo xam ne fa dara jaam toll ca dëgg-dëgg mën nu koo xam lan mën a xam daal mooy ko yàlla sàkk la boole ko ci noonu nu di ko gis di ko limaale ci mbindeef yi doomi aadama yi mu wax ne moom day jaamu yàlla di la yëkkati yonante loolu daal la mu xam ci moom waaye dëgg-dëgg dara jaam moom mën na koo xam minal xilli tukkee na ci xarit bi moom nuyoo bi ibrahima ta ibrahim Diop moo jibu xatti yi aji waral mbindam ma sanaaun mooy tagg wa shukurun ak sant lañ yab yi da bopp du alku wala ñu yef naa te du jeex nuyoo beeg wax ji jëpp mi ngi bàyyi ko ci ibrahima Diop te dara warlu ko lu may bëgg a tagg sëriñ bi sant ko cant goo xam ne amut fu muy yem walahu aydan fii nuur wajhika nekk na ci leeru sa kanam maa loo xam ne yóoru nii dana doyluloo anil xamari walis weer wa wa fii yaminika nekk ni sa ndeyjoor maa loo xam ne yóoru nii dana doyluloo anil matari walis taw wa fii fu aadika nekk na ci